billahi min alsheytaani irrajim bismillahi arrahmaani irrahim wa sallallahu taala ala sayidina wa mawlana muhammadin wa ala alihi wa amaani wa zid baraa'i gannaaw ci seytaane tàmbalee ci turu sunu boroom tabaraka wa julli yonenteem bu tedd ba alayhi salaatu wassalaam ñaanal ak njabootam ak i saxaabaam ak ngën ji liggéeyalkatam bu muy Seex Ahmadul Xadim radiallahu taala anhu ñu ngi nuyu mbokki jullit yépp di leen ziyaare ak fu ñu mën a nekk ci biir réew mi rawatina ñiy safoo seen télé bi di télévision Al Mouridiyyah TV di jàlle ci nuyu boobu ki fi nekkal tey Seexul Xadim Mbàkke muy Seex Sidil Muxtaar xalifatul am li tariqatil Mouridiyyah ñu ngi koy nuyu baax di ko ziar di ko ñaan su borom defal ko tawféex ak mbooleem kilifa diine yépp bàyyiwuñ kenn fépp fu ñu nekk rek ñu ngi leen di ñaanal sunu borom tabaaraka wa taala defal leen tawfiix àddina ak alaaxira gannaaw loolu mbokk yi nuyoo boobu comme niñ ko baaxoo defee rek seen émission bi ngeen xam ñu koy wax afadilul ayam afadilul ayam mbokk yi buñ ko dee wax dafa leen toppal rek yenn bis yi nekk ci biir at mi doon ay bis yu bari ngëneel te bari ay tuyaaba lool mu mat a waxtaane nag ngir fàttali ko bañ ngëneel yi ci nekk yépp ñu mën koo xam mën koo jëriñoo ci gën jaarafit anam nim leen ni tànnale ay bis noonu la leen tànnale ay weer ndax xam na ni euh, jamono ji sunu borom dafa ko tënk ci ay waxtu ak i bis ak i weer ak i at weer bi nga xamante ni nag ci lañu fas yéene waxtaane tey dafay weer wu màgg di weer woo xamante ni wu am solo la te yaakaar naa bu ñu diggee ci biir dinañ ko gën a xam ngir mën a xam ngëneel yi nga xamante ni moom la ci sunu borom tabaaraka wa taala def weer woowu nag mooy shahru rajab di nuyu mbokk yépp di leen ci ziyaare di ñaan sunu borom tabaaraka wa taala mu defal na ko muy weeru tawfiix bari ngëneel lool yoo xamante ni kenn mënu koo takk te liñ ci jaamu yépp sunu borom tabaaraka wa taala nangul nu ko te dugal na dugalal ñu ko foo xamante ni yàq àgg fa weeru rajab wi nag mbokk yi dafay weeru wu màgg di weer woo xamante ni yaakaar naa ni tënkee waxtaan rek ci euh, ñett la fas yéene jëm wala ñaar maanaam li njëkk mooy danañ euh, leeral weeru rajab jagle gi nga xamante ni am na ko ci biir sunna si nabi sallallahu alayhi wa sallam nga xam ne ni weeru bëri ay jagle la ay mbir yoo xamante ni xew na ca ak yoo xamante ni wax nañ ni ku ko ca def euh, sunu borom tabaaraka taala dana defal lii ak lii ko loolu yaakaar naa moom la ñu bëgg a fas yéene indi ngeen njëkkee ko li nga xamante ni moom mooy waxtaan yi bu jógee ci loolu nag xam na xamante ni woor ci am na njariñ lool te bari ay tuyaaba kon loolu moom mooy jëm ci ñaareelu waxtaan wi kon ñu fas yéene koo tënkee noonu kon mbokk yi ni ñu ko waxee rek weeru rajab di weer wu tedd di weeru màgg di weer woo xamante ni ay ngëneelam bari na lool ba mënee su ko misaal kon bokk na ci ay jagleelam li xadis bi yonent bi sallallahu alayhi wa wax ni ala inna rajaba shahrullah wa saabaana shahri wa ramadaana shahru ummati boo xam ne rajab kat mooy weeru sunu borom tabaaraka wa taala kon suñu borom lu mu jël jagleel ko boppam kon loolu rek yaakaar naa bu ñu doon wër ngëneel ak i jagle loolu mel na ni doy na ci sëkk Shaabaan nag di weer wi ci tege mooy weeru sunu borom tubaab mooy weeru yonente bi sallallahu alayhi wa sallam euh, Ramadan di weer wi nga xamante ni moom mooy weeru xeetam wi moom yonente bi sallallahu alayhi wa sallam kon yaakaar naa jagle yi ci njëkk mooy bokk na ci rajab ñu xam ni weer la woo xamante ni weeru suñu borom tabaraka wa taala la ba tey ñu jëlee ci yonente bi sallallahu alayhi wa sallam wax ni. fadlu rajabin ala saairi shuhur ka fadlil quran ala saairil kalam mu ni ngëneelu rajab de ci mboolem weer yi muy weer yi nga xamante ni buñ ko xoolee fukki weer la ak ñaar nee na eh, rajab ni mu bëree ay ngëneel mi ngi mel ni arxuwaan ni mu mel ci mbooleem aw làng woo xamante ni sunu borom tabaaraka wa taala sàkk na ko ñu koy làng ñu ñu koy wax ni arxuwaan ni mu tiimee mboolem lu ñuy wax ak mboolem lu ñuy eh, dégg ci ay nopp ni alxuraan tiimee loolu lépp nee na ngëneelu rajab noonu la mel ci mboolem weer yi ba tey mu am ay jagle ba tey wa hada shahr aydan min al ashhurul xurum rajab bokk na ci weer yi nga xamante ni ci al ashhurul xurum lañ leen wooye mooy weer yi nga xamante ni bu njëkkoon ci jamono yonte bi sallallahu alayhi wa sallam dafa bokkoon ci weer yi nga xamante dañoo dëxalante wu ni buñ ci accès lépp luy xare ak yu jëm ci yooyu dañ ko teg ba ñeenti weer yooyu weesu mooy dul qaada sul xijja muharram rajab rek mooy bi nga xamante ni moo ci beru waaye yenn yi des yëpp ñoom ñoo toftaloo kon rajab ci weer yooyu la bokk nga xamante ni ñoom la ñuy wax al ashhurul xurum kon loolu bokk na ci ay jagleelam ak màggaayam ba tey ba tey yonte sallallahu alayhi wa sallam di wax ni euh, rajab na kon nii la màggee moo tax yonte bi sallallahu alayhi wa sallam wax ni ida kaana awalu laylatin min rajabin attaa allahu azza wa fiha ala ummati fa yaxfira lil mudnibin wa yukramu ltaibin wa yuqarribu aldakirin wa yuwaasilu almujtahidin fa man qaama tilka alleylata asbaxa maxfuran lahu yonente bi sallallahu alayhi wa sallam wax ni nee na guddi gi njëkk ci weeru rajab bu agsee nee na sunu boroom dafay fenk moom mi nga xamante ni mooy aji màgg ji maanaa dafay feeñ nee na bu agsee lan lay defal xeet yonente bi sallallahu alayhi wa mooy dafa leen di jéggal seeni bàkkaar di euh, teral ñi nga xamante ni ñooy way ñooy def ay tuub di jëmale ci weer wi loolu yaakaar naa dañ ci dikk sax ci biir waxtaan wi ak ñi nga xamante ni maa tamit di jege ñi nga xamante ni dañuy def ay asgar ak lépp loo xamante ni yàlla santaane na ko ci lu baax ñu koy def nee na ñoon suñu borom tabaaraka taala daf leen di jege nee na képp koo xam ne yaa ngi ciy def ak farlu nee na suñu borom da bokk da lay boole si ñi nga xamante ni daf leen di àggale ca da bu baax ba waaye mu wax ni weeru la bu dikkee nee na koo xam yaa ngi taxawee ay guddeem nee na boo xëyee da ngay set wecc ci ay bàkkaar ba mel ni koo xamante ni yaa ngi soog a judd kon lii rek yaakaar naa bu ci yemoon rek euh, ñu xam ni weer la bu mag boo xamante ni lu bëri ay ngëneel la ba dañu wax euh, Abu Saïd ku ñuy wax Abu Saïd dafa ñëw ci yonte bi sallallahu alayhi wa ci bis bi njëkk ci weeru rajab nee na yonte bi sallallahu alayhi wa sallam wax ko ni ko yaa Aba Saïd ay yawmin aktara xayra daani ko ban bis daani ko benn bis day bu gën a bu gën maanaam bu gën bisub tey bii amul nee na daane ko amul benn bisit bu gën a màgg wala bu gën a bari barke bisub tey bii nee na Abu Saïd wax yonente bi sallallahu wax wa sallam ni ko yow yonente bi sallallahu alayhi wa sallam loolu ana ban bis la yonente bi wax ni ko de Jibril dikk na léegi ci man wax ma ni ma guddig rajab su dikkee nee na sunu borom dafay diggal am malaaga muy wax ni ah, weeru rajab dikk na weer bi nga xamante mooy weeru tuub daal di nag képp koo xamante ni maanaam yaa ngi ciy tuub nee na wala ngay jéggalu sunu borom tabaaraka wa la lépp loo mën a def sunu borom tabaaraka wa la dana la ko jéggal kon loolu di du lu am solo loo xamante lu mat a bàyyi xel la kon loolu tax ñu wax ni kon na ngeen tere rajab ndax boo leen ko teree bu ëllëgee sunu borom da dana leen defal ci ay karama bisub yowmal xiyaam lu toll ak junni karaama képp koo xamante ni yaa ngi teral weer wi nga xamante ni moom mooy weeru rajab tey mu am ay jagleel ba tey mooy ci weer wi ci la yonante bi sallallahu alayhi wa sallam rañaane jëm ji fi nga xamante ni mooy al isra wal mi'raj nekkoon ci màkk sunu borom rañaane ko yóbbu ko fi nga xamante ni mooy al isra wal mi'raj loolu bokk na ci euh, jagleeli weer wi mi ngi amee woon ci weer wi nga xamante ni mooy shahru rajab mooy al isra wal mi'raj ba tey ki nga xamante ni moom euh, euh, doom la ci sëriñ bi muy Cheikh Mouhamadul Fadal ci weer wii nga xamante ni mooy rajab bokk na ci ay jagleelam ci la ko sunu borom defal la mu agsi fii nga xamante ni moom mooy àddina ñaar fukki fan ak juróom-ñaar ci la ganee li nga xamante ni mooy àddina kon loolu bokk na ci euh, ngëneelu rajab yi nga xamante ni am na ko muy gane gi nga xamante ni Cheikh Mouhamadou Fadel Mbacke gën na ci euh, li nga xamante ni moom mooy euh, ci weer bi nga xamante ni moom mooy rajab kon loolu yaakaar naa ak ni ñu ko waxee woon léegi muy loolu yi nga xamante ni ci la xew muy al isra wal mihraj yooyu yëpp kon dafay wane ni kon weer la boo xamante ni ay ngëneelam bëri na bëri koo xamante ni mu ne su ko misaal nga xamante boo demee ci mbindum Seexul Xadim mi ngi lay wax ni akrim bi rabbi asra bi xib bi laylan li xur bi maal barai xat baati yasri min baali mu diima bishri fil anbiya muy weer woo xamante ni li muy leeral rek mooy dafay wax ni euh, ci la sunu borom defale xéewal yonente bi sallallahu alayhi wa sallam mu jógee ci màkk dem fi nga xamante ni moom mooy bax baytil maqdis jóge fa dem fi nga xamante ni moom mooy li aju ci wàllu kii bi loolu yaakaar naa insha allahu rabbi dina ci digg baax a baax ci leeral ko ba xam ni li nga xam moo aju ci al isra wal miraj ak li ci aju lépp loolu euh, dana ci digg baax a baax a baax kon loolu yaakaar naa tamit euh, dafay leeral ba tey ci ngëneel yi nga xamante ni weeru rajab am na ko ba tey kon xam nañu weeru rajab kon nii la màggee moo tax kon ñu digle ni bu agsee sopp nañu képp koo xamante ni mën nga ko nga war ko te loolu yaakaar naa bu ñu xoolee li ñuy waaj wax ni muy li tàmbalee ci benn fan ba ba ci ñaar fukkeelu fan ba képp koo xamante ni yaa ngi koy woor am na ngëneel yoo xamante ni am na ci yoo xamante ni sunu borom tabaaraka taala dana ko defal loolu lépp nag bàyyi ko ci sunna si yonent bi moom mi nga xamante ni moom lañ sunu borom moo wax ni man képp koo xamante ni yaa ngi topp yonente bi xamal ne yaa ngi topp sunu borom tabaaraka wa taala kon loolu dañu wax ni képp koo xamante ni woor na ci weeru rajab donte benn fan la te maanaam ànd ci ak ngëm ak sàkku tuyaaba nee na loolu kooku na xam ni sunu borom warlul na ko ngërëmam te alxuraan moo wax ni wa ridwaanun minallaahi akbar dalika huwa alfawzul azim neen ngërëmal yàlla moo gën a màgg lépp lu dul moom te it mooy texe gi nga xamante ni mooy texe gu réy gi kon nee nañ képp koo xamante ni woor na ci benn rajab woor na ci bisu rajab maanaam weeru rajab donte benn bis la ci woor ngir def ko ngir gëm suñu borom ak sàkku tuyaaba nee na suñu borom warlu na ko ngërëmam te wa ridwan min allah akbar dalika wal fawzul azim ñu waxaat ni képp koo xamante ni woor na ci ñaari bis nee na suñu borom tabaaraka wa taala dana ko fulaneel ay jëfam ba mat ñaar te nee na benn bu ci ne ci loolu mu koy ful dana toll ni euh, doj yi nga xamante ni moom moo nekk ci àddina dana ko defal ci ab yoon loo xamante ni benn bu ci toll na ni doj yi nga xamante ni moom moo nekk ci àddina bépp muy waxaat ni képp koo xamante ni woon na ci ñetti fan nee sunu borom tabaaraka wa taala dana ko defal digganteem ak sawara ab baras boo xamante ni moom mooy dox seen diggante kon moom dana bokk ci ñi nga xam ne dañuy mucc ci sawara te na loolu baras boobu nga xam moo dox digganteem ak sawara ku ko doon a ku ko doon dox am at nee doo ko mën a jeexal ngir maanaam gudd goo xamante ni gudd na ko ñu waxaat ne képp ku ci woor ñeenti bis maanaam. ku xamante ni weeru rajab dikk na nga woor ci ñeenti bis nee sunu borom dana ko musal ci lii dana ko musal ci balaa musal ko ci saddum jinne mudal musal ko ci li nga xamante ni mooy ngaana musal ko ci siti ak yi nga xamante ni moom mooy bàyyi ko ci masiixu dajal kon képp koo xam ne woor na ci ñeenti fan sunu borom dana ko defal loolu yi képp koo xamante ni woor na ci ba tey li nga xamante ni mooy juróomi fan sunu borom dana ko musal ci li nga xamante ni mooy mbugalum bàmmeel nee na ki ki woor ci rajab na am kóolute ak yàqin ci ni suñu borom moom mosoon na ko ci li nga xamante mooy mbugalum bàmmeel ñu waxaat képp koo xamante ni woor na ci juróom bis nee na bu euh, nee na buy génn ci bàmmeelam maanaam bu bisu ci jotee bañ wal bofti ba ñëpp yi génn nee na suy génn kanamam day leer naññ ba mel ni weer wu toll ci diggante fukki fan ak euh, ñaar jëm ci fukki fan ak ñeent eh, ñeent ni muy leere nee na kanam bu ëllëgee noonu lay leere buy génn ci bàmmeelam ñu waxaat ni képp koo xamante ni woor na ci juróom-ñaari fan ne na xam ni suñ borom tëjal na ko bunt yi nga xamante ni mooy bunti jahannama na xam ne sawara juróom benn juróom-ñaari bunt la kon ku woor ci rajab euh, juróom-ñaari fan suñ borom tëjal na la sa bunti sawara ñu waxaat ni képp koo xamante ni woor na ci juróom-ñetti bis suñ borom ubbil ko bunti àjjana yi nga xamante ni mooy juróom-ñett kon ku woor ci rajab juróom-ñetti bis suñ borom dana la musal maanaam dina la defal tawféex ubbil la bunti àjjana yëpp nga xam ne bu ëllëgee soo faatoo rek dangay ngay daal di tàbbi àjjana direct képp koo xamante ni woor na ci it li nga xamante ni mooy juróom-ñeenti fan nee na bu ëllëgee buy génn ci bàmmeelam dafay wax laa ilaha illa allahu muhammadun rasulullahi salallahu taala alayhi wa sallam te nee na kat man yàlla kooku bu ëllëgee kanamam du ma ko dugal mukk fi nga xamante ni mooy sawara waaye du ma ko fan fan laa koy dugal mooy fi nga xamante ni moom mooy aljanna kon ku wóor ci rajab juróom-ñeenti bis bu ëllëgee buy génn dafay woote di wax ni laa ilaha illa allahu muhammadun rasulullahi salallahu taala alayhi wa sallam ba pare suñ boroom rotal ko fi nga xamante ni moom mooy aljanna ñu waxaat ni képp ku ci wóor fukki bis nee na suñ borom dana ko defal buy jéggi siraat maanaam euh, diggante bi da ci ay barab yoo xamante ni ci lay noppaloo nga xamante ni euh, maanaam dana ko defal ci diggante bi nga xamante ni ci lay jéggi siraat barab bu mu ci àgg rek dana am foo xamante ni fa lay noppaloo ci loolu lay nekk di ci nekk ba keroog muy tàbbi fi nga xamante ni moom mooy aljana nga xamante ni jéggi bu moom du ci yëg dara loolu da jékki rek àgg fi nga xamante ni moom mooy aljana ndax du ci benn coono ñu waxaat képp ku ci wor fukki fan ak benn nee na bu ëllëgee yow mu xiyam deesul gis ku ko gën a bëri ay ngëneel loolu koo xamante ni dafa wor ni moom wala mu def jeneen jëf joo xamante ni moom moom mi defu ko waaye képp ku ci woor fukki fan ak benn nee na bu ëllëgee deesul gis ëllëg yowmal xiyam ku la gën xanaa loolu koo xamante ne dafa def li nga def mooy dafa war rajab wala boog mu def jëf joo xamante ni yow defoo ko koo xamante ni moo gën a bëri ngëneel loolu ñu waxaat ni képp koo xamante ni war na ci fukki fan ak ñaar nee na bu ëllëgee suñu borom ko wodde ci koddaay yi nga xamante ni mooy koddaay yi aljane yi boo xamante ni nee na benn bu ci ne moo gën àddina ak li ci biiram ñu waxaat ni képp ku ci woor fukki fan ak ñett nee na bu ëllëgee suñ borom buy àtte jaam yi def na la tegal ci euh, ronu aras ab ndab boo xamante ni yow ca ngay xéewaloo te nee na jamono yi nga ko ñu la koy defal nit ñi nag ñi ngi nekk ci tartar yu métti yoo xamante ni ñi ngi leen di atte ak defi affaire kenn ku ci ne ñu lay atte ngir jëmale fa nga war a jëm nee na kuy woor ci rajab nee na bu ëllëgee suñu borom dafa ko tegal euh, ab ab ab table avancé la ci ni ñu ko mën a waxee ci ronu xaras muy xéwalu nga xamante ni tartal yi am yëpp moom du ci yëg li nga xamante ni moom moo ciy am ñu waxaat ni képp koo xamante ni it woor na ci rajab fukki fan ak ak ñeent nee na suñu borom dana ko jox loo xamante ni bët mënu koo gis nopp mënu koo dégg te it nee na bu ëllëgee amul kenn koo xamante ne dina ko bañ ci ñi nga xamante ni moom mooy mbindeef yi ñu waxaat ni képp ko ci war fukki fan ak juróom nee na bu ëllëgee sunu borom dana ko taxawal fi muy taxaw way wóolu mooy ñi nga xamante ne ñoom fañ taxaw xam nañ bu wér ni sunu borom aljana la leen jëmee nee na bu ëllëgee ki war ci rajab fukki fan ak juróom euh, ki ki nga xam ne war na ci fukki fan ak ñeent nee na bu ëllëgee sunu borom. ci foofu la koy taxawal ma képp ka woon na ci fukki fan ak juróom nee na boo léegee sunu borom foofu la koy taxawal mooy fi nga xamante ni ña fa taxaw xam ne ñoom euh, lu mu yàgg-yàgg aljana leen sunu borom jëmee mu waxaat ne képp koo xamante woon na ci fukki fan ak juróom nee na bu ëllëgee dana bokk ci nga xam ñoom ñoo njëkk a ziyaare sunu borom tabaaraka wa taala waaye duñ ca yam dañuy dégg waxi sunu borom waaye dañuy xool jëmmam jë di dégg li nga xamante ni moom lay wax ku ci woor it fukki fan ak juróom-ñaar ci rajab nee na sunu boroom danoo ko defal ba tey buy jéggi siraat am noppalukaay boo xamante ni moom lay am diggante bu mu àgg rek dana fa am fu mën a noppaloo ba keroog muy àgg fi nga xamante ni mooy aljana loolu boo ko déggee mooy buy jéggi siraat du ci am benn noflaay waaye day jékki-jékki rek tàbbi fi nga xamante ni moom mooy aljana ñu waxaat ne képp ku ci war fukki fan ak juróom-ñett nee na bu ëllëgee yonte yàlla Ibrahima fa muy dëkkee nee na boobaa sunu borom fa la lay dëkkee yaag moom ngeen bokk di dund ca aljana ñu waxaat ba tey ku ci war fukki fan ak juróom-ñeent kon bu ëllëgee yomal xiyaam nee na ba tey sunu boroom dana ko tabaxal am jënde lu mag ci wetu fi nga xamante ni mu fa la yonente yàlla Ibrahima nekk ak Adama alayhim assalaam kon loolu muy lu am solo loo xamante ni lu mat a bàyyi xel la baax ba tey mu wax ni ku ci war ñaar fukki fan nag nee na sunu boroom dana digal am malaayka mu woote daal ni yow sama jaam bi bi yow sama jaam bi xamal ni la wéyoon moom waxeetu ko suñu borom jéggal na la ko daa ne ko nag euh, amamada naa ne ko nee na ko la wéyoon yaa abdallahi amamada faqad xafarallahu laka la woyoon moom suñu borom jéggal na ko xamal ni bis na ko tey suñu borom dafa na la ak njéggal set nga wécc ci lépp loo xamante ni yaa ko doon def ak lu moo doon xamal bis na ko tey suñu borom jéggal na la loolu kon loolu yaakaar naa li tàmbalee ci fan benn fan ba ak ñaar fukki fan ya nga mooy yi nga xamante ni moom la làmbal ba kon xam na ni euh, wóor rajab kon ay ngëneelam kon mbokk yi buñ buñ déggali danañ xam ni loo euh, doon na loo xamante ni ne su ko takk moo tax ñu wax ni kon bu ëllëgee ci yomul xiyam am na dex gu fa nekk goo xamante ne ñu ngi koy wooyee rajab nee na dex googu de ndoxam moo gën a weex li nga xamante ni mooy soow waaye moo gën a sedd it li nga xamante ni mooy glace te it mooy nee na moo gën a neex ndox ma moo gën a neex lem boo ne képp koo xam woon na ci rajo benn bis donte benn bis la nee bu ëllëgee suñu borom tabaaraka wa taala dana ko mandal ci dex googu nga xamante ni moom mooy euh, moom moo mel noonu nii ba tey ñu ci Abi Darda mu wax ni mu jëlee ci Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam wax ni képp koo xam ne rajab dikk na nga woor ci benn fan nee na yaa ngi mel ni koo xamante ni sa dund gépp danga koo woor fanaane koo julli ñu wax it boo léegi sunu borom tabaaraka taala dafay woote ci kaw asamaan wax ni yow waliyu yàlla wi daan ni ko na nga ñëw ci kanam sunu borom dafa bokk ñi nga xamante ne dañ leen woo ñu ñëw taxaw di xool sunu borom tabaaraka taala ndax loolu ay ngëneel yu mag da cee nekk. te nee na bu ëllëgee buy faatu sunu borom daf koy defal mu doon koo xam ne bu fi jugee ak mar du ko yóbbaale nee na it euh, buy dugg fi nga xamante ni mooy bàmmeelam nee day màndi bu du am benn mar waaye bu cay génn dafay màndi ba benn mar du ko yóbbaale. buy tàbbi aljana nee na dafay màndi ba benn mar du ko yóbbaale kon lépp luy coono rek suñu borom tabaaraka taala dafa ko koy teggil loolu dañoo wax ni képp ku ci war benn fan rek suñu borom dina defal loolu yi képp koo xamante ni war na ci it ci rajab nee na kon na xam ni yàlla ci boppam warul na ko ñett yi bi njëkk mooy suñu borom dana ko jéggal mboolem lu mu mas a def musal ko it ci lépp loo xamante ni ay des-des la ci ak dundam. musal ko yee ci li nga xamante ni mooy ak mar ci ëllëg fi nga xamante ni mooy bisu penc mooy bu ñuy àttee jaam nee na du ci dara waaye lépp lu fay coono su borom tabaaraka taala dafa ko cay muñal waxaa ni képp koo xamante ni wóor na ci it képp koo xamante ni nag wóoru rajab dikk na mu jël wóor wépp man ko wóor ko kon kooku wax nañ ni moom ay ngëneelam dafa bëri ndax dañoo wax ni sunu borom tabaaraka taala bu ëllëgee dafay woo jaam yooyu wax la li leen kat yow sama jaam bi kat nga xamante ni wóoru rajab yépp da nga ko joon màng ko woor ko daan ko lenn rek laay sàkku ci yow mooy laaj ma daan ko soo ma laajee de giñ naa sama tedd nga ak sama màgg nga lépp loo laaj rek man suñu borom tabaaraka wa taala du duma ko delloo waaye damay nangu sa ñaan ndax ne ko nag naa xam ne bis ni ko tey kuy dëkkaale nga ak man ci fi nga xamante ni moom mooy xaras xamal ko ne ko yow sama jàmbi ba tey bokk nga ci ñi nga xamante ni ñu ma sopp leen ci samay mbindeef kon yaakaar naa bëgg yàlla moom yàlla bëgg la moo ko gën a kawe fopp fopp bu daani ko ba tey na nga xam ni bokk nga ci way tedd yi nga xamante ni bu ëllëgee dinaa leen bégal ba nga xamante ni ab kiiraay du am sama diggante ak yow kon loolu yaakaar naa lu euh, am ay ngëneel la kon kii war ci rajab na xam ni bu ëllëgee lii la ko sunu borom tabaaraka wa taala di defal da ko wax ne ko sama jàmm bi kat euh, war na ci man kat ci sama àq tey jii nga xam ne lépp lu ma la ñaan man su borom giñ naa sama tedd nga sama màgg dinaa la ko defal xamagu ne ko ne bis ne ko tey sag ñaan loo ñaanante rek danaa ko nangu te it xamal ni sama dëkkaale nga ci ronu ci ronu aras te it xamal ni ñu ma ku ma sopp nga ci sama mbindeef yi waaye ku ma teral nga ci ñi nga xamante ni mooy mbindeef yi daane ko ne kon bégal xam ni sama diggante yow bis na ko tey dara doxatu ci kon képp koo xamante ni yaa ngi màng wooru we weeru rajab wooru ko jeex nga ne li mel ni la doon suñu borom suñu borom tabaaraka wa taala di defal ba tey weeru rajab am ci yoo xamante ni dañ koo jaglee ba tey ndax dañoo wax ni képp koo xamante ni weer rajab dikk na nga jël ci ñaari bis rek woor ko ngir barkeeloo ko nee na bu ëllëgee maanaam say ngëneel euh, mëneesu ko misaal ñañ osamaan ak ñañ suuf mëneesu la misaal li la suñu boom defal ci ay teraanga ak yi ngëneel maanaam ku nekk osamaan ak ku nekk suuf mënut a misaal loolu ngir bëri koo xamante dina ko bari ba tey aliyun karamala wajhu mu wax ni woor ci rajab fukki fan ak euh, ñett nee na ku ko def mel na ni koo xamante ni dafa woor ñetti junni ba tey woor ci fukki fan ak juróom-ñeent nee na ku ko def mel na ni ku woor euh, fukki euh, at maanaam fukki junni at ku ci woor it euh, fu ñaar fukki fan mel na ni koo xamante ni woor na junni at yoo xamante ni daf ko woor ba tey ñu wax ni képp koo xamante ni weer rajab dikk na mu woor benn fan ngir ba barkeeloo ko mi ngi mel ni koo xamante ni woor na ñeent fukki at kon yooyu yëpp du am solo yoo xamante ni nit koo nag bàyyi baax bàyyi xel baax a baax ndax ay ngëneelam bëri na bëri koo xamante ni mënees su ko misaal ba tey jëlee ci ku naan sawban radiyallahu anhu mu jëlee ci yonte bi sallallahu alayhi wa sallam wax ni nee na dafa àndoon ak yonte bi sallallahu alayhi ñu romb ay bàmmeel nee na bi ñu rombee bàmmeel ñu dégg koo xamante ni dafay am ñoo xam dañuy jooy ci biir ci biir bàmmeel ya nee na yonte bi sallallahu alayhi wa sallam wax ne ko sawban dégg nga ñooñu de ñu ngi leen di mbugal ci seen i biir bàmmeel daal di ñaan yàlla moom suñ moom yonente bi sallallahu alayhi wa sallam mu oyofan mbugal moom ci ñoom nee na mu wax yow ñii day bu fekkoon kenn ci ñoom dafa woor benn fan ci rajab di taxawa ay guddeem nee na ko bu ëllëgee sunu borom tabaaraka wa taala euh, mbugal mi ñu nekk bu fekkoon kenn dafa war ci ñoom rek di taxawe guddi rajab nee na su boom dana leen musal ci euh, mbugal moom yi xam moom lañu nekk nee na sawbaan wax yonte sallallahu alayhi wa sallam ni ko donte benn bis lañ ci war sa ak taxaway guddeem mu ne ko waawoo bu fekkoon def nañ ko de giñ naa ki ci ki nga xamante ni moom moo euh, sama bakkan ci loxoom la nekk mu ne ko amul benn jullit bu góor wala jullit bu jigéen boo xamante ni dina woor ci rajab benn bis di taxaw ay guddeem loolu suñu borom dana ko defal lii mooy dana ko bindal jaamu yàlla at boo xamante ni dafa euh, yendoo wor euh, fanaane taxawe ay guddeem ba tey ñu wax ni euh, yowmal xiyaam bu agsee neen suñu borom dafay wax ni ay na rajibun mooy ñi nga xamante ni ñooy daan dundal weeru rajab daal ni anañu nee na ñu daal di jug daal di ànd ak leer gu mat sëkk nee na buñ jugee rek ne daf leen di boole jibril ak mikaayil ak israfil nee na ñu leen di gunge nee na ñuy dox ba sàgg ñu daal di romb benn barab boo xamante ni dafa leer naññi nee na buñ agsee rek Euh, jibril mika israfil da leen di digal ni leen ñoom ñëpp nañ sujjóot bu ñu sujjóotee nee na bu ñu siggee nee na dañuy dañ naa leen yëkkati leen seen bopp bu ñu yëkkati seen bopp nee na dañuy gis ay jënd yu rafet ak ay tabax yoo xamante ni taar ba mënee su ko misaal ñuy laaj kan moom moom lii suñu borom tabaaraka taala laa yéen kat seen dund gépp deen ko jeexaloon ci man kon bis na ko tey lii mooy li nga xamante moom laa leen di fayee kon wàcc leen ci seen dëkkuwaay yu tedd yooyee ngeen nekk te doon am benn problème ci fi nga xamante ni moom fa jëm ci aljana ya loolu yaakaar lu am solo la lu mat a bàyyi xel la baax a baax ba tey bokk na ci weer uh, woor weeru rajab am solo gi nga xamante ni am na ko dafa am benn jigéen boo xamante ni ku mënoon a jaamu yàlla la bi nga xamante ni ak faatu dikkal na ko ñu wax ni dafa waxoon doom ni ko kat su ma faatoo yére yi ma daan sol su may jaamu yàlla sunu borom ci weeru rajab na nga jël yére boobu nga sàngee ma ko ba mu leen waxee loolu ñoom biñ demee ba koy denc ñu fàtte loolu defuñu ko ba nga xamante ne denc nañ ko nag ba wëlbatiku dellu ci seen kër ñu ñëw fekk yére bañ ko defaloon ñu jël euh, fekk ñu fa yére boobu waaye maanaam yére ba mu leen waxoon biñ ñëwee ci kër ga fekk ñu ko fa waaye yére bañ ko dencaale woon moom lañ fa fekk bi ñoom tamit loolu daal leen di xaw a jaaxal am lu xaaju ci kaw asamaan si mel ni lu leen woo wax leen ni leen kat euh, kii daf leen a digal leen yére bi nan jaamu yàlla nañ ko ko dencaale defoo leen ko waaye xam leen ni bis na ko tey yére boobu kat jël nañ ko ba soppi kook bi nga xamante ni moom ngeen bàyyi woon ci kër ga maanaam maanaam mooy yére bi leen digaloon ngir ngeen indi ko ko ci bàmmeelam kon bis ne ko tey yére boobu mooy bi nga xamante ni moom laa changé defal ko ko ab yére bi nga xamante ni moom la digale woon ni nañ ko ko defal mu mu doon yére boo xamante moom lay jaamu yàlla ci weeru rajab daal nii leen kat ñun sunu daal leen man sunu borom tabaaraka wa taala képp koo xamante ni yaa ngi jaamu yàlla ci weeru rajab euh, lépp luy njàqare ak lépp luy tiis tiis xamal ni duma ko accès ci yow kon loolu yaakaar naa muy lu am solo koo xamante ni yére bi ngi daan jaamu yàlla képp ci weeru rajab mën na laa defal lii kon rawatina ñi nga xamante ni nag dañuy dundal weer wi ci ay jaamu yàlla ak lu lépp loo xamante ni lu sunu Boroom tabaaraka wa laa digle la ko loolu nañ ko bàyyi xel baax a baax a baax ba tey euh, li ñuy tëjee waxtaan rek mooy nga xam ne weeru rajab su dikkee sopp nañu ci fukki fa yu njëkk ya ak yi ci digg ba ak yi ci mujj ga ay ñaan yoo xamante ni sopp nañ ko ko def ñaan yooyu nag moo nekk nii mooy dañoo wax ni fukki fan yi njëkk ci weeru rajab saa yoo xëyee na nga wax lii euh, subhaanal xayyul qayyum kon fukki fan yi njëkk ci weeru rajab saa yu dikkee na ngay wax li subhaanal xayyul qayyum bu fukki fan yi matee muy fukki fan ci digg bi na nga commencé wax li subhaanallahil ahadi samad subhaanallahil ahadi samad subhaanallahil ahadi samad kon loolu fukki fan yi ci digg bi loolu ngay wax bu ñu demee ba àgg ci fukki fan yi mujjee nag na ngay wax li subhaanallahi rauf subhaanallahi rauf subhaanallahi rauf mën nga dem ñetti yoon saa yoo xëyee wala lim boo man rek kon loolu bokk na ci li nga xamante ni sopp nañu bu weeru rajab dikkee fukki fan njëkk yi na ngay def lii yi ci topp ngay def lii ci topp ngay def lii kon fukki fan njëkk yi li ngay def mooy subhaanal hayyul qayyum ci fukki fan njëkk yi ci digg bi ngay wax subhaanallahi ahadi samad yu mujj ki ngay wax subhaanal subhaanallahi rauf ba tey ñu sopp ba tey ci ñetti weer yi muy rajab chaban ramadan sopp nañu képp koo xamante ni euh, xëy nga wala nga julli ba noppi mooy xadis boo xam ne ñu ngi ko jëlee ci ibnu abbas radiallahu anhuma mu jëlee ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mu wax ni man qaala fi rajabin wa chaabaani wa ramadan fi ma bayna alzuhri wal asri astaghfirullah alazim allazi la ilaha illa huwa alxayu alqayum wa atubu ilayhi tawbata abdin zalimin la yamliku li nafsihi darran wala nafan wala mawtan wala xayaatan wala nusura ñu wax ni kon képp koo xamante ni weeru rajab dikk na maanaam diggante tisbar ak takkusan na nga wax ñaan gi moo nekk ni astaghfirullah alazim allazi la ilaha illa huwa alhayu alqayum wa atubu ilayhi tawbata abdin zalimin la yamliku li nafsihi darran wala nafaa wala mawtan wala xayaatan wala nushura kon ñaan googu diggante tisbaar ak takkusaan ci lañ koy wax ci weeru rajab ñu wax ni képp koo xamante ni def nga ko nee na suñu borom dafay wax yu aw malaaka ni leen ñaari malaaka ni leen sama jaam boobu wax loolu le bis ni tey lakk leen mboolem ay téere ñaawteefam ci fépp foo xamante ni aw ñaawteefam aggoon na ko ci diiwaan yi ak fu mën a doon bis na ko nangeen na ngeen lakk téere yi ñaaw tefam yépp soppil ko lépp li nga xamante ni moom mooy ay ngëneel kon loolu muy lu am solo loo xamante ni guddut tey di ko def bari na ngëneel ndax lépp loo xamante ni soo ko defee rek suñu borom mën laa musal ci ay gàllankoor yi lu ma doon ndax nañ ku ko def suñu borom day digal ñaari malaaka ni leen nañ lakk say téere yi ñaawteef yépp fi mboolem diwaan boo xamante ni saw ñaawteef àggoon na fa rek bis na ko tey nañ ko lakk kon loolu yaakaar naa mooy li ñuy indi woon tey ci bisu rajab bi mooy weeru rajab bi incha allah euh, danañ dikk ci li nga xamante ni moo aju ci day def istixfaar ci weeru rajab njëriñ li nga xamante ni am na ko ak ngëneel li ci yonante bi sallallahu alayhi wa sallam digee loolu lépp danañ ko indi ci afadul ajam bi bu ci jugee indi euh, li nga xamante ni mooy saraxe ci weeru rajab ndax yooyu yëpp dafa bëri ay ngëneel loo xamante ni yonante bi sallallahu alayhi wa sallam jàngale na ko kon loolu yaakaar naa danañ ko indi ci kon li leen indiloon tey mu jëmoon ci euh, weeru rajab di ñaan sunu borom tabaaraka la lépp lu ñu ci def mu nangul ñu ko di dellu di sant mbokk yépp di leen ziar di ñaan sunu borom tabaaraka taala defal nu tawfiix ba li nga xamante ni ñu ngi ko ci jaamu ak lu mu mën a doon sunu borom nangu ko tey fule nañu yool yi baax a baax a baax di dellu di ñaanal kii kilifa gu tedd gi di Cheikh Sidi Mokhtar ak mboolem kilifa diin yépp sunu borom defal leen tawfiix defal ko mboolem jullit ki leen doon defal waxtaan yi di seen mbokkum taalibi Abdul Baaxi Silla muallimul Quran fi daara xisbu tarxiya wassalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu Touba monde bi duna wërngal këpp